su amee ci yéen ku nekk ci tiis na ñaan ci yàlla ku nekk ci mbég na sant yàlla ci woy su amee ci yéen ku wopp na woo njiiti mbooloo mi ñu ñaanal ko te diw boppam ci turu borom bi te ñaan gu ànd ak ngëm dina musal ki wopp ba borom bi yëkkati ko te su ko fekkoon na i bàkkaar sax yàlla dina ko baal kon nag waxante leen seeni bàkkaar tey ñaanalante